nga def te xam dafay porter atteinte à la constitution ne ne ñun d'accorduñ ci loolu ndax violence la exercer sa la te day violence yi ñuy wax ni ay kas ak yooyu mais France gi du démocratie États-Unis du démocratie mais mais Aïcha la am ñu xaaj genn wàllam gi amul fii ci réew mi ba amoon ci xajul sa ci réew mi mais même même au sein des religions oui même au sein des religions, même dans l'islam. Oui. Mais la violence a eu lieu. La ah, violence, oui. elle est le moteur de l'histoire. Il y a ça. de bonnes violences, il y a de mauvaises violences. Parce qu'en réalité, tous les prophètes armés ont réussi, ah. tous les des prophètes désarmés ont été anéantis. ils vont anéantir. Alors, laissez-le terminer rapidement. et légalement admise e c'est ça c'est la conscience qui nous le dit donc man. Mhm. li ma gëm ñaar rek fi am fi mu toll nii xoolal soxna Ndeye Fatou ku la man di wax ñaar rek fi am maam kii di président Macky Sall ak diil yi mu teg ak les acteurs politiques muy PDS man jël si nommément ils sont dans un deal de plus ñuy dem muy gën di leer. Mhm. j'assume pleinement mes propos. deal bi xam ni moom lañ teg ci réew mi xamu professeur fan lañ jëm. mooy toll foo xam ne lijjanti réew mi day jafe ñaar rek a koy lijjanti boobaa soit nit ñi taxaw xeexul le peuple ñu dellu ginnaaw delluwaat ci ordre constitutionnel lépp tegu ci yoon wa illaa ñu dem ci dialogue ci dialogue te dialogue boobu dafay jafe xamul tax honorable bi mooy li tax muy jafe hmm. mooy ki xam ni moom la nii waxtaanal olof yi dañuy wax ni ku ndëmin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw. Mhm. quand ton noir a tué ton oncle la sagesse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire même s'il elle douce c'est-à-dire kii xam ne moom lañ war a jologal chers compatriotes kooku mooy dafay wax di denc ci kàddoom. malheureusement. mooy li sanu li si doon wax léegi mais man en tant que citoyen sénégalais. fii may wax ak yow ma amoon pouvoir wala mën a dugg ci xol kii di président Macky li ma koy diggal suba suba suba. mooy mu wax le pro le le le ministre de la justice en collaboration avec le procureur de la république. ñu def lan kii di Ousmane Sonko. kii di Bassirou Diomaye ak mboolem ku mës a arrêté ci ay manifestations yu ni mel ñu génn ñépp kaso gi ba mu leer wut des personnalités indépendante ñu diriger effectivement un dialogue boo xam ne ni dafay am des assurances yu leer que ni kii di Karim Meïssa Wade kii di usman sonk ak képp koo xam bëgg naa bokk ci élection yi ñu permettre ko mu dem. ci biir élection yi buñ ci àggee. Mhm. Sénégalais yi mën a àtte. ci ñoom ki ñu bëgg a tànn ci réew mi. mu nekk lu inclusif la solution mais leneen lu la man di wax. Mhm. dañu wër loo wete ñaamoog lu ni mel waaye ala kuli al fa ñuy mujjee rek muy ñaari soit peuple bi vaincre. Mhm. par effectivement donc le durcissement des contestations du point de vue légal ou bien ñu toog autour d'une table avec des assurances certaines yàlla na ma dégg nag. ndax man mii di wax ak yow ci ñi wàccoon tey ci laa bokk pour contester et je vais le réitérer alors euh, Lamine incha si jëm après de Lamine euh, euh, on l'a entendu Ndeye Fatou nag li ma ko bëggoon mooy Ndeye Fatou man laatama ak si sonn naa lool kon yow xam naa dama yaakaar da nga ne ci beneen Sénégal wuute ak bi xam ne man ci laa man professeur sans pour autant vous vous mentir boo génnee léegi oto bi xam ne moom andi laata ma cee jot xam nga fu mu nu ma defam ci moto laa dugg. yaa ngi ko doon wax ndax yooyu xam ne moo jëm ci fii. yëpp mm. doon koo baare. Mm. ak ay briques yoo xam ne kenn mënu koo yëkkati. yaa ngi ko doon wax tout à l'heure suñu déggee euh, euh, lu ñu jot a wax ci ci table bi jëmale ko euh, ci PDS même maître mu ngi koy wax waxu deal est-ce qu'on n'est pas en train de faire un mauvais procès au PDS Lamine. Euh, <laughs> j'ai, j'ai, il y a beaucoup d'idées qui m'habitent. mais on va essayer de trier Noël je suis très déçu de de le mettre wax parce que je le croyais un brillant avocat mais je vais vous confronter à la rigueur scientifique du droit peut-être que vous êtes praticien du droit mais nous reconnaissez notre mérite d'être théoricien du droit maître vous parlez de par sax nationalité attestation sur l'honneur vous dites deal quel est le rôle que Thierno Alassane Sall a joué dans ce deal donc parce que nu été la saisine de Thierno Alassane Sall PDS da de dem élection il faut le dire aux Sénégalais qu'on soit honnête je nga réew mi et là je brosse pour dire que c'est dommage que qu'on veuille prendre le Sénégal dañuy nekk ci contexte bu sérieux si nous faisons l'inventaire de 2009 jusqu'à aujourd'hui combien de jeunes Sénégalais ont perdu la vie pour des raisons politiques enrôlés à travers des discours faux qui ne reposent sur absolument rien. Vous dites par jour. Ne maîtrisez pas la Pouvez-vous me rappeler l'article du droit qui parle de par jour Vous êtes avocat, vous n'êtes pas constitutionnaliste. vous êtes un Vous parlez de par jour, vous n'êtes pas constitutionnaliste. Vous êtes privatiste. Vous parlez de par vous On nous demande. Vous ne savez ni si je suis privatiste ou publiciste. les avocats sont dans le privé les avocats vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État vous êtes privatiste avocat privatiste il ne connaît pas ma formation non je ne parle pas de formation vous êtes juriste si je suis en fait publiciste ne perdons pas de temps avançons la ne perdons pas, de théoricien de rien vous parlez de parjure j'arrive et il faut lire les dispositions de L21 d'accord j'arrive et je suis désolé Et si vous dites parjure, euh, parlant de Karim Wade, on nous a demandé une l'a fait. Le Conseil constitutionnel en 2019, Mimi a invalidé la candidature de Karim. C'était sur un autre motif lié au fichier électoral. Un. Deuxièmement, 2019, 2024, on l'a déposé. C'est quoi une attestation sur l'honneur Combien de fois vous allez à la mairie, au tribunal, où vous faites des procédures Il faut lui demander euh, en fait, de la vérité aux Sénégalais. En la, loi eh, eh, eh, Et la première pièce à déposer. Très bien. laissez-le terminer maintenant, maître. L'article de la Constitution du Sénégal, si vous avez la Constitution, dit que pour être candidat, il faut être de nationalité exclusivement sénégalaise. Le jour du il faut être plus de 75 ans. Ah, c'est ce que la loi nous dit. Vous ne pouvez la constitution sénégalaise ou dans nos lois ou qui dit que c'est période ou c'est telle période. Ce au Conseil constitutionnel, c'est pas à de prouver. quelqu'un a contesté, il le code électoral. lui revient de constater que au moment de sa délibération, Karim Wade dispose d'une nationalité exclusive. C'est ce qui a été fait. Un décret le prouve. Bien avant un décret, une première déclaration sur l'honneur. Ne déplacez pas le sujet. c'est un. Euh, donc, vous me parlez de parjure, vous feriez mieux d'aller revoir vos cours de, de droit. Parjure, c'est un faux serment. Euh, ah oui deal je vous ai dit y avait deal vous seriez bien à l'aise nga wax ñu Thierno Alassane Sall ban rôle la joué ci deal bi c'est faux. tu dans fu ñu toll réew mi on ne peut pas prendre les problèmes du pays et les ramener à des espaces de waxu mbedd un débat sans structuration vous avez bien fait de commencer votre discours nga waxal ñu le protocole additionnel de la CEDEAO si ce protocole exige que dans l'espace de six mois waruñu laal le processus ce même dispositif recommande qu'il y ait un consensus dans toutes les échéances électorales consensus y a-t-il consensus donc ne faites pas faites-nous très attention euh, vous êtes revenu pour dire des choses d'une extrême gravité mm-hmm. euh, parlant de l'UMS rappelez-vous ñaata professeur université ñoo fi taxaw di bind di remettre en cause des dispositions de ce pays ces professeurs UMS syndicat de magistrats dañu leen ëpp dignité dañu leen ëpp dignité je vais vous faire une révélation extrême Cheikh Tidiane Coulibaly man PDS laa bokk mais sama nijaay la akkan akkan est-ce que vous savez ce que vous dites donc je pense que vous devez avoir un minimum de respect pour les Sénégalais leur dire la vérité ñu arrêter caaxaan bi populisme bi dafa doy ci dëkk bi ñu dem dans une rigueur scientifique ñu wax leen loolu soo toogee fii naan deal foo ko teg y' combien de Bougane tout le monde a décrié le comportement du conseil constitutionnel. loolu bees ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs je vous même que peut-être vous n'avez pas été au dialogue foofu lay waxee mon frère de de bom gëm su bopp allez-y aux rencontres dites ce que vous pensez c'est dans ce dialogue que les gens ont pointé du doigt le conseil constitutionnel ça toujours incompétent cette affaire qui vient de naître au Sénégal mais c'est pour moi l'ultime phase de la manifestation de la crise que nous vivons combien de fois nous avons décrié notre justice c'est aujourd'hui qu'on vient de décrier le Conseil constitutionnel ñaata yoon lañ fi saaga juge saaga fi magistrat yi saaga Conseil constitutionnel traîné de tous les noms aujourd'hui des faits ont établi que ñii problème mu clé USB waruñu bokk ci élection yi te mënoo prouver aucunement leur responsabilité dans leur invalidation am ñeneen ñu am double nationalité conseil constitutionnel tere ñu am nationalité fu ma parler de Karim nu bi ma njëkkee jël parole tu m'as entendu parler de Karim